nena waa ci njiital sëriñ Saaliwu Faal nee na bàyyiwuñ mi ngi nuyu sëriñ Jigal di ko sant bu ci ab teewaayam di am mbegte mu màgg ci moom di ko jottali nuyoob sëriñ gi akuk cantam noonu lañuy ñuy nuyoo tamit nee na sëriñ Ibrahima Gueye nee na di ko sant bu baax ci ab taxawaayam ci kër gi ak ci yoonu murit gépp di wax waa mbooloo mi ci njiital sëriñ Saaliw Faal nee na sëriñ bi mu ngi leen di sant bu baax nee na cant goo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye nee na amul fenn fu muy yem nee na boo ko doon jël benn par benn nee na kon cant yu bëree bëree bëri lay doon waaye nee na biñ ci mën a fesal lool neena mooy lii ngeen def tey jii nee na mën naa bëri ay tur lool nag mën nga koo tuddee liggéeyal sëriñ Touba. mën nga koo tuddee saxal kóllëre waaye damay jël bi tax ngeen def muy ziyaar ab ziyaar moo leen fi indi nee na ziyaar boobu nag nee na ndax booy xool ci yoonu murit sart yi boo ko xoolee ba mu jeex doo ci gis baat boobu ñu ne ci la bokk waaye day loo xamante ni ci ki koy def day am lu muy wane ci boppam muy day wane ni ab taalibe la ndax mën ngaa doon ab murit te doo àgg ci foofu ndax murit boo xasee ba jox sa bopp Serigne Touba murit nga taalibe nag aw doxin la doxin woowee nag da caa bokk foo dégg nit ku baax nitu yàlla jaamukatub yàlla ku làq ngërëmal Sëñ Tuuba nga ne naa dem siyaare ji ko nee na loolu yi nag la muy wundu daa am looy sàkku ndax lu mën a xew boo ko siyaaree faw rek di nga fa jëlee dara moo xam da koo yëg moo xam yëgoo ko mooy bi nga xamante ni nag faw nga yëg ko te ngay yëg ni ki nga siyaar si bég na lool balaa jotaay baa jeex di nga yëg ni kii moom bég na ndax dina la ko wan ci jëflante wala ciy kàddu nee na boobu nag nee na am ngeen ko ay ati ati ab yu bëree baree baree bari ci sëriñ bi ndax yàgg naa toog ngeen jàkkaarloo ak moom defe ko nii ngeen ko defee mu jël kàddu gi sant leen gërëm leen wax leen mbégteem bëri waa na tamit li mu leen dig lu mu leen yaakaarloo ci siyaar bi loo xamante ni nit mënu ko ci àdduna kenn dootu ko mënate ci àdduna sañ-sam ba mu amoon di leen wax di dig ay cër ak ay yool ak i tiyaaba loolu moom moo ko sañoon ba tey nag moom moo fi nekk ndax suñ boroom yàlla moom du ku ñuy jàkkaar lool jëmmi yàlla du lu ñuy gis yëg ko sax yombul yëg ko sax yombul waaye nag moom du ku ñuy gis kon sëriñ bi tey bu demee tey ba fatu ngeen ñëw wuutewul benn yoon ak bi ngeen daan jàkkaarloo ak moom seen jotaay bii ak jotaay yooya nee na amul lu ca wiite ak moom ndax fa mu nekk moom xam na lépp li ñu wax ne da ngay jaamu yàlla ba mel ni mu ngi lay gis ba mel ni yow yaa ngi gis yàlla waaye boo ko gisul it nga xam ne moom mi ngi lay gis nitu yàlla yi foofii la ñuy yegg bu ñu toogee fii mën nañoo jàpp ni gisuñu ko waaye ñu xam nañ ni mi ngi ñuy gis mi ngi ñuy dégg it kon sëriñ Saliou nee na lenn rek laa la mën a wax mooy sëriñ bi sant na cant gu bàyyikoo ci moom jëm ci yéen ndax defe naa ni loolu rek moo fi xaj ci jotaay bi wax leen ak cantam akuk mbégteem ci ñëw bii ngeen ñëw ngir jëmmam ndax moo tax ngeen ñëw fi waaye nag moom mi nga xamante ni moo tax ngeen ñëw fi ñëw ngeen nag ci ku jara ñëw koo xamante ni ku ko liggéeyal Serigne Touba fay la ku ku ko ziyaare mel na nga ziyaare nga Serigne Touba ndax boo ko ziyaaree ziyaar bi Serigne Touba nangu na ko te loolu nag mooy jëmm ji nga xamante ni deesu ko dab ci bëgg sëriñ Touba ci liggéeyal sëriñ Touba sëriñ Touba jaral ko kon bu ñu sëriñ Touba rawee ci gis-gis lépp lu ñu rawoon mënees na ko dabu ci jëmmi sëriñ Saliou Touré ji ndax lépp daje na ci moom ngërëmal sëñ Touba mi ngi ci moom ngërëmal suñ borom subhaanahu wa taala mi ngi ci moom ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci moom ndax nee na moom moo ko waxal boppam de nee na ba muy lim di wax ni ba sëñ Tuubaa di wax ni yàlla gërëm na ma yonent bi gërëm na ma gërëm nañ ma da caa teg moom sëriñ bi ne bërëb bii la toogoon ni sëriñ Tuubaa gërëm na ma ni yàlla gërëm na ma yonent bi gërëm na ma sëriñ Tuubaa gërëm na ma lum ca teg ku ma gërëmul it ndokk nii la ko waxe kon kooku ci ngeen moo ci moom ngeen ñëw tey jii ziyaar si ko kon ñetti ngërëm yooyu yëpp daje ci moom boo ko ziyaaree sab ziyaar nangu na sëriñ Tuubaa nag dafa neexut liggéeyal moo tax ma ni seen ñëw bi bari na nuñ ko mën a tudde génnul loolu mi ngi ci biir liggéeyal Serigne Touba balaa koo mën a doon dëgg dëgg dëgg dëgg ngeen bañ caa wut dara bañ caa sàkku dara donte séquma ko yéen wax dëgg yàlla lii ak laabire rekk la ndax li leen boole ab sëriñ boolewu leen bokk génn kër gu ngeen siyaar boolewu leen bokk pas-pas ci sëñ Touba moo leen boole mooy seen mbooloo mii tey jii borom bitig bi boo yoree saw ñaar fukk ne ko jox ma tàngal bee bu la ko joxee day daal di tolloog ñaar fukk ya boo jëlaatee beneen fukki dërëm ne ko jox ma si ngom bee day tolloog moom waaye boo ñëwee nag sànni ko sab téeméer ne ko loo bëgg nga ni ko jëlal bu neexee nga sànni fa sab ñaari junni mun na looy jënd nga ni ko jëlal wala nga jox ko sab million mu ne lii nga ni ko jëlal day dem ba day dem ba yàgg mu na la lépp a ngi noonu loo bëgg rek jëlal nee na noonu la sëñ Tuubaa mel booy liggéeyal sëñ Tuubaa dee ko jox rek bañ caa wut dara nag wit ak bëgg bokkuñu mën ngaa bëgg nag bu ca wit dara la nga bëgg moom sëñ Tuubaa xam na ko xam na li gën ci yow xam li lay lor mënoo bëgg lu mu xamul moom sëñ Tuubaa boo dee ko liggéeyal rek bàyyi ko ak sa bopp li nga bëgg moom sëñ Tuubaa dina ko def waaye nag moom bu ko tudd li nga bëgg bu ko tudd mukk boo ko wut boo ko tuddee yaa ngi wit te mul wut nag bëgg rek te bañ a wut te di ko liggéeyal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fu waay toll na tàllal loxo aw góor